abonné leen ci seen seen YouTube Partout moom leen di jox xibaar yu wér te Partout TV euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi mën nañ ne jamono bi ñu toll nii njiital réew bu France ak ki nga xam ne rek moom mooy président Macky Sall jot nañoo daal di waxtaan lañ doon waxtaanee bokk na ca sommet bi nga xam ne rek dañoo war a nas pacte financier mondial bu bees ñu war ko amal foofu foofule ca Élysée nekk ci 22 jàpp 23 waxtaan wi nag mën nañu li ko gënoon a tax a jukku moom mooy crise bi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko jamono bi ñu toll nii fii ci réew mii di Sénégal. la tax nag ba fukk ak juróom ji doomi aadama daal di jot ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne rek moom moo jógee ci gouvernement bu Sénégal di ay chiffres yu nga xam ne rek muy kujje politique yi fii ci réew mii di Sénégal ñoom ñooñee mën nañ ne d'accorduñ si bu baax a baax rawatina waa Amnesty International loole nag mën nañu jàpp nañu ci seen wàññi lim bi ëpp na fukk ak juróom benn ci weccante xalaat bi nga xam ne rek dox na ci diggante ñaari njiiti réew yi nii dafa mel ni Emmanuel Macron moom miikat utal na porox ndoolu Macky bu dee ne teg na ci suuf mbirum ñetteelu mandat bi nga xam ne rek mën nañu jamono bii ñu toll nii bokk na ci li dëkk bi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu Jeune Afrique mu ni Afrique dafa soxla ay kilifa yu nga xam ne rekk tey mën nañ ko teewal ci àdduna wërngal këpp ci ay mbootaay yu mel ne mbootaayu xeet yi maanaam ONU G20 wala sax mu dal di teewal Afrique ci ay réforme de l'ordre financier mondial yi nga xam ne rek some bi jàpp nañ ko ci weeru juin bi foofale ca Paris bu ñu sukkandikoo nag ci ab source diplomatique française bu nga xam ne rek Jeune Afrique daal dina koy junj ne xam na ni bu baax baax njiital France di Emmanuel Macron du ko seetaan benn yoon dina ko jàppale ci ëllëgëm mbir moomee bu fekkente ne nag moom mi di Macky Sall soxla na ko loolee kat nekk li nga xam ne rek moom moo gënoon a fees.